gërëm bu baax ci élection bi ñu jóge maa ngi sans sant euh, conseillers municipaux yi yëpp ñi ma tànn pour ma mën a wuutu le maire Ousmane Sonko ci boppu maire yi élection bi ñu ma fal jàppewuma ko yëfu nguur jàppewuma ko loo xam ni pour ngundaan daal dama ko jàppee loo xam ne charge bu diis la pour li mën a jëmale Ziguinchor ci kanam bu ko defee maa ngi ñaan conseillers yi fi nekk yépp ñaan ko agent yi aussi ñu xam ne lii ñu yor fii ci Ziguinchor muy mairie bi dañ ko war a yor ci anam yu mucc ayib ndax ñu mën a liggéey ba mën a développer Ziguinchor Ziguinchor waa bu mën bu nekk mu mën cee gis bopp